Ah, dama xam ne kat ab simmeeku ab salon de massage yow kenn yow yow kuy laajum réew te yow la bon la yées yaa koy def ah yow gone yu ndaw yi gone yi am vingt ans ku ci nekk sa suuf gi xam na lu ci ne ah ku ci nekk xam na handicapé bi nga yor ci sa suuf lépp xam nañ ko yaa ngi ci salon de massage yi yaa ngay laaj chocolat yaa ngay laaj mant yaa ngay laaj buy ah? bu subaa nga laaj kew lu ne nga laaj ko di tëddee gone yu ndaw di def lu bon ba pare yow nga xëy nag na fëddët ci digg réew mi nag ne réew mi maa ko moom lu ma neex wax lu ma neex def ta dara duma ma ci fekk dem ba naan almet laa yor bilaay sa almet boobu di nga ko koset ci sa bopp Ousmane Sonko. man lii dama ko musut a gis di sëñ bi man damaa waaru yow aji saar xale boo xam ne mën nga koo jur aji saar tiim la di wax neena na buy nee na mant nga bëgg nee na bu tayee nga jël sokolaa ñu diw la ko bu subaa ñu diw la mant ci kuy laajum réew laa wax de kuy laajum réew gone gu tuuti goo xam ne mën nga koo jur nga taxaw di séq moom ba mu toog di la wax ni nga ko doon séqee moom ah aji saar dem na dema dema dem ba wax léget bu rëy bi nekk ci benn xóodu góosam boobu la ca nekk lépp aji saar wax na ko simmeekoom bi xale yëpp di ko paasante salon de massage bu ne son ko teg fa tànkam ne leen maase leen ma damaa amee diggu luy metti deresu geresu yeew laa daan diwoo Ousmane Sonko geresu yeewam googu mu daan diwoo moo tax mbiram mi mu yor fu mu toll di fudd mënatul a téye tubayam jii waxtaan wax dëgg ca la amul benn problème mu ndigg amu ko ndax problème mu ndigg ku ko am doo puus brouette te ko Sonko katu brouette la énergie bi mu def ci gone yu ndaw yii xale bu ñëw mu këlamtoo la borom moom digg du ko mën ku amee ndiggi Ousmane Sonko nu muy def du ko mën ay xale yu ndaw ku ñëw xam na sa silib ba nga jiital ku ñëw xam na sa cicatrice ba nekk ci sa suuf Ousmane Sonko di puus gone yi rek di dem di puus burwet di dem nga ne da ngaa amee ndiggu liy metti ba pare yow loolu ñu ngi koy jooy pareegu ñu Ousmane Sonko jog taxaw ci digg euh, àdduna bi nag yem ñu fu ñu yàlla yemut ne damaa yor almet di ko koset almet bi nag xam nga fan la ko waroon na kosetam ci lu suufam googu xale yi naan daa ëppanteeki dafa amee léget ci la ko waroon a koset mu tàkk tax nit ñi am jàmm jigéen ñi am jàmm xale yi am jàmm Ousmane Sonko li mu nekkee dañ ko cee bàyyi. yow fu mu defee musibaam rek daal di woote xale yi génn leen yow simmeeku nga ba li fi am yëpp am fi yow puus nga brouette ba li fi xew yëpp xew fi yow doyalagoo ndey dem di woote waat naan génn leen ngeen xeexal ma ñu koy xeexal la ñàkk fayda ne moom mu dem defi bànneexam am bànneexu tubayam ba pare ñëw dajale jeunesse bi ne leen kaay leen xeexal ma jeunesse bi amul fu